عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق jàppal mais tamit dafa baax ma leeral histoire bi pour ñu xam bis bi importance bi mu am kon Baye Niass moo ay Baye Niass moom yaay delloo njukkal la ñuy delloo njukkal Baye Niass moom la ñuy fàttali Baye Niass moom la ñuy sant ci taxawaayam ci faydu ci taxawaayam ci diinu islam ci kër diine taxawaayam ci Sénégal ak une journée internationale dellu ko si bëgg bàyyi liggéeyal bàyyi sant bàyyi parce que moo waxoon ne ku ma bëgg rek texe dañ ñaan ki gën a texe moom mooy bëgg safaan bi noonu moo waxoon tamit ne ku ma liggéeyal da nga jot sa càkkuteef ma taaloon wax képp ku bëgg bàyyi képp ku liggéeyal bàyyi lii itam jël naa ci ndigal ci xalifa bi dina am suñu sama papa la sama xarit waaw bu ma weesoo nag dama def lu may emele fii kàddu yi remercier ci le préfet pour jotal ñu ci le gouverneur intérieur ba ci président de la République Macky Sall monsieur le ministre de l'intérieur léegi euh, bi d'ailleurs sax pare la ci jour bi man demandé naa ko def ko parrainage accepté na ko moom monsieur le monsieur le ministre de l'intérieur man ko yëgee naa ne waa commission yi Aliou leen rek moo ko métti moo fekk mu kale benn programme boo xam ne le premier boo xam ne dafa doon def waaye bu duutoon loolu kenn du fa jiitu waaye ñu ngi seetlu formé délégation boo xam ne ñu ngi ñëw jëmmal ko ci ci parce que moo xaale a Alaaji Baye ak soppe yi di dem yi ba parce que date bi jotagut ñoo xam na ngeen di xam ne moom jiitu réew mi la président de la République moom dégg na bés bi na bés bi ñu ngi ko déglu nag ay réaction ñu ngi sori parce que suñu doo ko jiitu ci a bon bu loolu euh, maa ngi gërëm ñëpp maa ngi lay gërëm gan ñu na ko ñu ñun yi nga xam ne ci bëri ñoom yàgg naa miin seen xar-xanam gis naa seen engagement yi daan jël fii di ci góorgóorlu comment moo organisé dañ ko am ci engagement maa ko jiite diiwaan diiwaan bëgg <coughs> bàyyi liggéeyal bàyyi sant bàyyi dans l'unité boobu organisation la boo xam ne ni bu yàgg la waaye buñ beesal la defaraat tur bi ci la koo si ëmb ci la pays bi ci la lépp ëmb dañu gën a yaatal ci boobu am na coordinateur Cheikh Moussa Cheikh euh, Seck diiwaan am na nit nekk nga xam ne am nañ ay service ku mel keneen léegi ñu ne def tam tonton Omar Thiam conseiller la mm. ngi fi alaaji Jimba ñu ngi fi bi tey alaaji Baye Euh, Moustapha Thiam bi tey nga xam ne doon borom dëkk la di conseil ci euh, ñeeru njaafaat ñii fi ak ñeneen kon maa ngi yemale fi sama kat ñuy presse bi di rafetlu seen teewaay bu baax a baax di leen ñaan yàlla ñaan yàlla ma ñu tawfiq ci bés bi na loolu nag maa ngi remercier bu baax mm. parce que vraiment euh, af yi xam na lool lool lool lool waaye fonk doomi aadama loolu lañ ko sant fonk askanu Sénégal loolu lay jiital mais fonk kilifa diine yi jagleel moo na Cheikh Ibrahima jagleel ñoo tax mu gaaw kale waaye bu dutoon loolu bu ko def ñu koy gërëm bu baax di ñaan mu réussir ren ba bu déwénee ñu àgg CRD ba dem bi union nationale parce que moo na Cheikh Ibrahima ëpp na loolu maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp maa ngi sàkku ñëpp ñaan maa ngi gërëm maa ngi sant asalaamaaleykum wa rahmatulah kon damay jox euh, professeur Ibou Thiam sama attaché de sama conseiller moom da nga aw say kaar yi seen kaar yi day pan ci yoon lu nekk ñu di yoonu yàqu ak oto yu day waar loolu sàkk nañ ko sàkk nañ tamit mboolem aju ci santé mboolem aju ci sécurité wala ci sécurité ay policiers gendarme selon ni ñu ko mënee ñoom rek tënku ñu ci dara mboolem aju ci ndimbal ci ci yoonu yëpp ci wàllu ceeb ci wàllu douane ci wàllu lépp loo xam ne dafay dimbale nit ñi ci dëkk ba yi ci gàttal daal lépp commission boo xam ne dafay am ci organisation wàllu Sonatel wàllu Free wàllu mboolem loo xam ne nii dafay nekk da nga wax ni njëriñ ay antenne yu fa sant ci boo mu yomb réseau bi loolu yëpp daal euh, bokk na ci doléance yi wax dañu ko ñu guddal yéen a bi préfecture préfet xamal nañu ne fii jotaay la wax fi jël ay décision ni ñu diggaate ñu oone service Kaolack yëpp ñu ngi fi teew ñu ngi waxtaan incha allah buñ tënkee rek lañ fa décidé dañu ko xamal askan yi te di séntu tam pour ñu ñëw taxawee jëfin bi képp ku ci taxaw rek euh, dana ci am njëriñ maa ngi oon ñëpp ñu ñëw ñu dina bàyyi waa tey dañu seen waa Kousi waa Sambaay moo ñëw suur ñu dina saamu Kousi wa tey ba kaw la ko kat tax yaa bi ñu tëlee fii képp ku dégg appel bi rek ñëwal ku ko déggu tam ku ko déggee feneen ñëwal nga bàyyi ñu oto yàgg na dañuy feesal xam ay oto yàgg alayka salaatullahi thumma salaamu fa barahamu jiddun aashiq